Fatim Brise de Mer daa bëgg a dem. waa arbitre nee na bëre leen Brise de Mer Cokaas. Cokaas daa bëgg a dem daa bëgg bulldozer sigi mu daw ci tànk yi. Brise de Mer. bulldozer daa mel ni xam na loolu Fatim da dañuy xeex dañuy xeex Fatim. waa bulldozer xool nga dóoram. dañuy xeex da koy Cokaas gëmul xeex bi. daa bëgg bu dawee sangu ko mu reñaan ko match bi tas donc bëre Ndamal ak Ndiol. bëre Ndamal ak Ndiol. Bulldozer dagg na Leewtoo. waaw Bulldozer bu sigiwul Brise de du mën ci moom dara. ayca. tamante nañuy baaraam songoo nañu. daje nañu ñoom ñaar. mais buur combat bi amul xeex. amul xeex. te pourtant bu amoon xeex. eh jël na coup uppercut. Bulldozer mu ngi enchaîné xeex bi. na da tooñ da koy tooñ da koy cokaas Fatim. Bulldozer mais li muy def baaxul ah. da koy tooñ gis nga lii la bëggoon dem ci tànk yi. waaw ah, daan na ko Bulldozer daan na ja euh, euh, Bulldozer daan na Brise de Mer numéro 2 Brise daan na ko. mais li muy def baaxul ah. da koy tooñ gis nga lii la dem ci daan na ko Bulldozer daan na ja.